Seexu daan na. xale ba daan daan na. Liss Ndiago daan na. jërëjëf mbokki internet yi jërëjëf mbokki amateur yi tey buur géwél doxu lamb buur la mi def sama consultant tey ñu ànd ñëw jàmm gën si bi xale bu saf sap gars yi dem ba tuddee njaago bu taakala bi la njaago de laren

yeah maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa jàmm gën yeah di rafetlu seen teewaay fii tamit xamu lor yeah di bëggee ñëpp di bëggee képp kuy bëggee Liss Ndiago rek yeah maa lay nuyu di leen wax na bisimilah dal jàmm rahman dal jàmm. Eh, Liss coow li topp Liss lan la. yeah coow li man xale laa. yaa ngi dégg nekk si koñ ko waa yaa ngi dégg mag nga joxalu moom xale nga joxalu moom yeah noonu la demee. kon daal waa jàmm gën daal ñoo la ñoo la bëggal seen bopp. man mais am na loo leen lebal quand même. man maanaam man ni may bëggee du jàmm gën kese. Hmm. man ñëpp dañ may bëggee boo demee ginnaaw raay buun mbedd faas yaa ngi dégg géejawaay parcelle man àdduna dañ may bëggee quoi di përsoram di nuyuwaale ñëpp. Hmm. mais Liss yéen yi bayre la wala est-ce que du mystique Liss. non yàlla la quoi. yàlla la njaago yi dañu dañu dañu grand. Ah. non u caayeeg yooyu. loolu yàlla moo ko def si man rek. Mhm. man balaa may bëri sama damaa amoon xam la mhm. man damaa yàgg am tur quoi ay coow nii nii. Mhm. nga doon bëri kon loo doon def. yee man balaa may bëri dawal naa sareet. yee dund naa yeneen business tamit yoo xam ne man su yee du luy wax si ay télé quoi. waa mais danga dem ba mu yàgg daal gis ni que am nga chance ci bëri la moo la influence Liss ba nga bëri. influence yu bëri du leen loolu samay mag doon bëri. ñoom gabaar ñoom El Hadj miy ay ñoom Makiou Batissa. yaa yee léeg ma fooy ba ngoon jot ma ànd a ñoom écurie ba di leen teel seen yëre yi léeg-léeg may bërëntu foofu noonu yaa ngi dégg ànd ak sama mafia xam nga lu di bërëntu mbapat bërëntu mbapat ba ñoom ñu baay yee xam nga gaan fi sos affaire yooyu noonu yee ma suul tànki ut licence bëre euh, euh, ku ne xam na ni ay jàmm gën jak saaw Grand Yoff souvent day quartier yoo xam ne lu ci bëri dañ leen jiiñ wàllu délinquance Liss am na jaar-jaar bu mel noonu bi mu nekkee xale. ay maanaam loolu noonu ay wax la rek. Hmm. ay wax la rek ñun mosu waay ñun maanaam ay njaagu lañ waaye tam ay bayfa lañ ay lépp lañ. Hmm. yaa ngi dégg ñun maanaam day nit ak noo mëntu mel rek day day nekk yow. parce que yar nañu si loolu noonu quoi. Hmm. ay délégance ak affaire yooyu noonu loolu ay wax la rek. lool pour man amul quoi. Liss mos a dugg jàll. man man mooy loolu mosuma dugg jelle mhm. déedéet mais jaar nga daal ci yëfu xale quoi waaw si ay yëfu xale lañ jaar affaire yooyu doon mhm. waaw dañu gis si moom souvent buy bëri image yu Siteu la ñuy gis da ngeen am ay ay point commun yu bëri ci wàllu accoutrement ci wàllu fecc ba ci wàllu popu pop maanaam popul euh, populaire ñi topp da nga am relation ak Siteu. yeah Siteu suñ grand frère la quoi. Mhm. yaa ngi dégg te tamit xamula yee amaan tamit jaamu ngeen fi nii nii bëri na mbër ko waa yee moom maanaam tey ñu nañ def lu ñu war yaa ngi dégg mais ñu waxee dëgg rek jaamu ngeen bu demee bu tool fi yee yàlla ak moom la ko waa bu dëgg neexee mais teewul tamit isili ñoo xaw ñoo ndiiroo ko waa yee loolu ñu koy wax bëri na mais isili leen ndiiroo rek mais est-ce que taxawaay bi war ci yenn jeunes jàmm gën yi nga xamante ne que yéenay bëri est-ce que mu koy def ci surtout yeah ba xam mun mu ñuy taxawal affaire waaw ñu ñëpp jàmm doo seeg jàmm waa ñu ñëpp. Hmm. yeah buñ dajee hmm. mais est-ce que mu ngi leen di taxawu xam nga di ngeen seq jàmm am relation. mais est-ce que mu ngi leen di taxawu. ba xam mu ngi ñuy taxaw ñu ñëpp nii. Hmm. waaw mu ñuy taxaw. comme nan waaw. mu ngi ñuy taxaw si waaw mu ngi taxaw si lépp. bu ngeen amee combat dina ñëw def ci xaalisam ànd ak yéen. waaw. Mm. waaw mais li li nga wax dafa mel ni ñeme woo ko. moo ñuy taxaw si lépp dafa mel da ngay da ngay rafetal ci wax ji. Mm. wala bëggoo xëj na wax ji am beneen wax quoi. saa mu ngi ñuy taxaw. Mm-hmm. parce que xam nga lu wax suñu grand frère la ak ñoom Take. Mm. ñoom Mama Lamine ñeneen ak ñeneen. oui suñu gër ñoom ñëpp suñu grand frère dañuy taxaw ñoom ñëpp ay Abou Ndiassé su ma libéré damay jum ay Boulal keneen ak keneen. Mm-hmm. billaay ay bu jaamu ko ñëpp. sa digganteeg euh, Ameth Lacrose euh, Ameth Lacrose. bokk na ci combat yi gën a métti ca combat <laughs> parce que da nga ko minimiser woon man signature man maa nga fa woon wala boobu jamono boobu lis dafa dafa dafa naagu woon quoi. maa amee la rose heure la quoi. Hmm. parce que dama bëre trois combats yàlla may ñu ndam. Hmm. yaa ngi dégg quatrième bi xam la fëggu de jeunesse. yaa ngi dégg ak jàpp ni man lu taxaw sama kanam mu naa ko xam la. Hmm. yaa jàpp xelu xale tamit loolu moo ñu nax. oui mais loolu dañ na si ñun quoi. mais defet boobu defet bu metti woon la ci yow. non defet la rek kon defet yëpp defet moom musul neex defet day métti. oui mhm. mais dañuy xam man su waañ man maanaam ñu doon xam suñu bopp quoi xam ñu ñooy kan. Mhm. sa victoire bu mujj euh, sa diggante ak général Kayre ñoo nga foon arène nationale Liss ñëw indiwaat mbooloo. Euh, fecc la mu daan fecc Liss foo jàngee fecc. man fu ma jàngee fec man sama géwél maa ngi moom ñooy ànd mëkku ma. Mhm. maa moom waay ñooy ànd ñoo bañ nekk xale ba tey ñooy ànd. Mhm. yee te pour moo wax la exemple waa ñun fecceguñu. feccu leen dañoo génne baax bu bees tàq te dañ koy waajal si saison bii di ñëw. sama gël mbokkuma xale la kon man. yee day tëgg lu mu tëgg man a dama koy fecc dafa mën a tëgg carrément. mais Liss ana njaagu dégg galañ Liss. waaw yow man jaamu nga laa juddoo fii laa yoroo fii laa màggee man doon daan naa simb daan naa def lu ne xam nga mhm. di dem ay répétition man ak tëggkat yi fu ne. mooy loolu noonu dama dama tarbiyu si de. waaw kon yow njaago géwél nga daal. waaw lépp la xam <laughs> lis euh, fan la lis jëm. fu ma jëm. waaw loolu def naa sama. parce saf yee ngi fi ah da baax booy yu saf ngi fi. waaw booy yu sap yoo xam ne lis rek la ñuy wër. saf lu saf lu ne rek moog lu saf ñooy daje. Mhm. yaa ngi dégg te avantage man dama fay nekk man ak samay ménagère ñoom Aliou Ngueye samay staff. buñ ma ne woon booy bi ngay bëral tumaroo mooy bëral moom. Liss Ndiago bébé Modou Lo. bébé Modou Lo kan mooy bébé Modou Lo. bébé Modou Lo mooy doomu Modou Lo bi. doomu Modou loo bi non man maa ngi samay ménagère. booy bu mën a bëri la. wala léegi yow ci ñoom Ada Fass ñooñu ngay wër. maa ngi samay ménagère man ay Alioune Gueye dégg nga. non Liss yow u tàppet nga fi wax liis xam nga liis doo am euh, maanaam bayre bi nga am fan ci làmb maanaam kol de popularité bi lay topp ñoo fi naan non maa ngi say ménagère maa ngi da ngay dëggal sa bopp Baye Fall yi jàkkaarloo ñoom wax ak ñoom. bu maanaam bu jëlee taxawul taxawul. baal tapet ñun maa ñu mun ñu doon tapet ko waa man déggum la wax man bu ma jéemoon man bu ma bëggoon ragal sax mënu ma ko nekk. Hmm. bu ma ko jéemoon bëgg ko doon mënu ma ko doon ko waaw man mënu ma ragal. Hmm. yaa ngi dégg mais daa maanaam ay ménagère am ay staff. ñoom ñoo naan gaa yi daal léegi. bul lim quoi xam loolu gaa yi la xew. Modou Lo mooy roi sa sa diggante ki nga xam ne ni moom mooy moom mooy Laxat Ndiaye euh, buur. ah fayoon na ko 1 million fay ki nga xam ne ni moom mooy moom mooy Thiatou Rebeuss 300000 300000 looloo yàq combat bi. fa dëgg yàlla ma mënu ma wax sama combat lii moo ko yàq wala lii. Hmm. ak yàlla moo ma tiim man pour ma la man lu ma am si làmb mooy lis am nga combat dama bëre dama dem bëre. mais caatu rëbës caatu rëbës mbir la de faal caatu rëbës caatu rëbës mbir la yaa ngi dégg hmm. mbër yi tax ngemb yëpp am ay mbir lañ waaw man dama di mbir ci biir mbir yi quoi yow yaay mbir ci biir mbir yi waaw <laughs> loolu de dabax leer loolu de du waxi njaago lool loolu de njaago naa ko léegi bu naan la euh, njaago laa waaye fii laa juddoo fii laa <laughs> mais mbir ci biir mbir yi mooy lan maanaam ñun ay momin lañ moomin mooy lan mooy xale hmm. yee lamb ji cet ba si suuf kaw ba si suuf yee man maa ci moomin bi mais Liss est-ce que mbër mu complet la ba xam mbër ci wàllu mën a bëre mën a xeex wala di bëri di xeex bëreeguma xeexaguma si làmb ko waa dafaguma ci dara nga ni bëreegoo xeexaguma ba pare feccaguma si làmb Liss est-ce que li nga wane ni tamit nekkul ni foofu foofu nga yem aussi ah xam nga maanaam wax nit rek mu gëm kooku maanaam borom xel sax du ko nangu. Mhm. bu jëfee rek wala nag. Mhm. man samay wax du xaw xam la du ma wax yu wax yu bëri. mais Liss daal ci tànku téye làmb ji la nekk ci loxo. waaw yow lu dul làmb moom mun ko téye parce que ñi ko téye ñi ko téye bu dee bëre dàq ñu ma bëre ëpp ñoo fit yaa ngi dégg. Mhm. gën ñu ma soxor ci làmb. yaa gën ñu ma ñëwee lu métti man avant ñu ma ñoo ma mag mais lu ma ñëwee dégg sax ñoom ñëwee wuñ ko dégg ñoom mënuloo ñu yor làmb ji. yaa ngi dégg. loolu ah, ngay dégg lépp loo na nga ñemewuñ ko dégg ko tamit li su tamit. lépp loo gis rek maanaam est ce que lii la quoi. Hmm. bu su ma fa yeggee bu ma yeggee seen catégorie li moo yor moom lu ñu yor ñoom ñëpp dama koy nangu par force. mais tamit est ce que lii tamit du yokk masse bi Fatim. masse bi dafa dafa xaw a. Euh, masse bi dafa xaw a tuuti buur dégg nga ko léegi mu naan mu naan moom moomin la moom mooy moominu làmb ji mais yaakaar naa ne kon bu dee moomin rek am na ñu la gën a nekk moomin si làmb ji. déggoo ma. ñoo ñëpp di wax ay la xam ay musalaaf lañ. man moomin laa ay xale laay àndal. ay xale ngay àndal. yee keroog ñëw nañ rajo bi. waaw gis nga ñu. nga def deux ans. ci làmb waaw am ñaata combat. am cinq combat. ak coow li la topp. waaw loolu coow li yàlla moo koy def. parce que yàlla day ànd ak xale. Mm-hmm. te ñun ay xale lañ ay moomin lañ man maa moominu làmb ja. ay moominu làmb mais li ñaata at la am. liis am na vingt vingt et un ans. vingt et un ans ban année la loolu ay quatre vingt quatorze. vingt un ans mooy lan. ñaar fukki at ak benn waa 2000 90e nga juddu Liss. waaw waaw 90e yàggul ah. waaw yàggul. doon njaago bu saf sap. waaw di lekk jànk tàng ucaa di naan sëng. waaw waaw waaye du ma naan du ma naan. kon Liss fi mu teg bëtam mooy doon roi des arènes. xanaa boobaa loolu laa bëgg loolu laa doon allah. yàlla yàlla may gudd fan ak wér. mais amna na ay champion mais la plupart seen champion dañuy taxaw ah. gis nañ fi ay ness gis nañ fi mais mos ñi Siteu moy ki gëna révolutionner lamb fi jàmm gën. lool amaanaam yalla moy doxé non ay mbiram quoi. Mhm. yalla manam mo naan sama mission fi ngay yem nga yem fofu wa man luma gëm quoi man luma ma gëm personnel man personnellement xaw man. moy manam man samay morom man lima bëgg a doon ci lamb ak fi ma bëgg a yegg. Mhm. pour man yàlla yàlla dafal jot quoi mais samay morom man pour man man ak ñoom. yee méttiwul quoi si diggante boobu noon su problème boobu noonu. Fatim pronostic. combat Balla Gaye. Gris Bordeaux taxaw na. komba euh, Siteu a ki nga xam ne moom mooy Papa di ñaari komba yu am solo beneen bi ñu koy togg euh, matagul li ci diggante Tapha Tine ak Lac de Guiers ñetti combat yooyu. góor ñetti combat yooyu damay njëkkee ci damay njëkkee ci bi nga xam ne nii rek moom la moom mooy Gris Bordeaux ak ki nga xam ne ni moom mooy moom mooy Balla Gaye euh, man damay wax tey ni Gris moom moom moom combat bi tey damay wax ni Gris moom moom moom combat bi euh, waaw parce que euh, bële passé dañ ko daan par décision arbitre par avertissement ndax xam nga ñaata yoon la daw génn li nga xam ne nii moom mooy moom mooy mooy arène bi après le combat buur dañ ko laaj mu ne dañ ma téyeloo sama bopp loolu du woon du lu war ci Gris Bordeaux ndax kenn seenu ko woon kenn seenu ko woon foofu xam nga li ñuy wax ci vidéo rek buur naan euh, amateur yi bañu ñu mbër mi bëre ba daanu waaye mbër mi daw ba daanu moom la ñu moom la ñu gaago Gris Bordeaux Balla loo gis Gris Bordeaux waaw loolu làmb la te pour ma làmb revanche la quoi yaa parce que kon li nga kii wax légui rek nee na Gris Bordeaux ba dañ ko teeleel dañ koo teel boppam ba liko ko si fekk fekk ko si amantam bi yoni ni xam xam la yaa war na mëna neex quoi war na mën neex Fatim Diop Dabax site Papa so l'expérience djibi face à la jeunesse yow la dégg nga diko wax waaw combat bobu loolu rek lañ ci mëna wax l'expérience face à la jeunesse. c'était le tarkina le le le piment. le piment de face. c'est bon xol tey ku avantage wu Fatick ñoom ñaar. Euh, ci ñom ñaar man man man damay wax sax ni 50 50 waye nak lima la wax rek l'expérience face euh, face à la jeunesse mhm. waaw. Liss Ndiago site Papa Sow. Siteu Papa Sow waaw lamb la. lamb la lamb ju neex la. lo gis ci ñom ci walu bëree. lu ma gis ci ñom manam ñom ñaar buñ dajee rek bëree day neex mais ma ngi ñaanal site yalla ko yalla may ndam. mais Papa Sow lay dajal aussi. waaw lamb la rek. Mm. champion mooy dajal champion. Mm. ndaanaan ak ndaanaan ñoy ñooy dajal. Mm-hmm. ñu ngi coow diggante Yékini Junior euh, safrula euh, diggante tafatin ak ki nga xam ne moom mooy Lac de Guiers waaye tey ci journal bi tey dañuy booy ñaa taxaw na ne revanche am mook Lac de Guiers moo ko gënal ak Lac de moom moo ko moom moo ko gënal xam nga buur maa ngi wax sax ni euh, Gaston dëgg la te gën a Gris Bordeaux ak ki nga xam ne ni moom mooy moom mooy Balla waaye amateurs yi booy Niang Balla Gaye moom lañ doon moom lañ doon xaar waaye revanche su ak ki nga xam ne nii moom mooy moom mooy Lac de Guiers lu war la ndax bul fàttali ni ca kalaaf bala ko daanoon boobaag léegi ñaataat at la. ramassu Lac de Guiers ak. ak moo la gënal. moo la gënal. lu tax dafa yàgg. bi ko waaw te atte bor fay. waaw. d' accord naa ak yow loolu Fatou baax l' expérience liste diggante yi euh, Tapha Tine wala Lac de Guiers Boy Niang ñaar revanche yooyu ban moo la ci gënal. xam nga Lac de Guiers boo ñëwaat dama bëre barki Demba yàggul. Mm-hmm. Tapha Tine Lac de Guiers loolu xel nangu na ko. Mm-hmm. waaw mooy yoon quoi parce que yàgg na trop tamit. Mm-hmm. rubrique baa ngi noonu nga xam ne dama ci ànd ak Fatou Diop da baax euh, mu joxe analyse wala xam-xamam ci ay combat yu bees ñu taxawal mbër mi nga xam dañ koy invité moom tamit joxe ci xalaatam joxe ci li nga xamante ne que moom la gis maanaam en tant qu'athlète liis lan ngay tàggoo. lu may ñaari maire yu fi jóge ko waaw muy maire Tcha ak tamit meer nee na ko waaw di leen ñaanal yal na yàlla yërëm leen xare leen àjjana te yàlla bu leen cet jiitu seen bàmmeel ko waaw di profité tamit di sant sama yaay ami affaire bu baax waaw maa ngi sant bu baax di sant maire aw Ball ak Tansali ak maire mbootaay yëpp si koñ bi di sant sama waa fan si club yee di ko jiital di ko di si jiital quoi ñoom Pire ñoom Joy Ba ak waa Ndiago Ba ñoom Aram Diaw ku lim di sant booy mooy àndal yëpp ay Laurent Esan ay Saliou Ngoulé Yamb yaa ngi dégg ay Zarko booy yëpp bàyyi ma kenn ku lim rek juum ay Tidiane maa ngi sant ñëpp yee di sant seex bi bu baax di sant sëñ Massamba bu baax sant tamit Seba Ndiaye borom Postaaroy Seba Ndiaye quoi kooku dafa may jàppale bu baax borom Postaaroy di bëggee ñëpp di sant Ablaye Kassé di sant tamit waa jàmm si ka mbaaw foran mais sa mbokku njaago yi wax a ñoom dara sànq maa ngi maa sa mbokku njaago yëpp di leen wax ne bien ma leenu ba ba yëtti di leen wax ne ulleef di bëggee ñëpp di bëggee waa Lamsaar caaro gém ma waa tapé rouge bi yee di bëggee képp kuy bëggee Liss Ndiago rek waa tableau waa ki naan ñëp bàyyi ma kenn Ndiago Bar foran jaay ko ngooñeeg borom fas yi borom saret yi waa guy ga tellement jaara bàyyi ma kenn walum sar Thiaroye geej bàyyi ma kenn ma ngi bëgg ñëpp di rafet seen téway fi ya di bëgg toma sama moniteur quoi yaay di bëgg ñëpp di bëggee wa galle bi di bëggee wa koñ bi di bëggee ñëpp wa koñ bi yëpp bàyyi ma kenn jërëjëf mbokk yi gis ngeen émission ba ngi nonu ni dakar ak di defee sa suné and ak yeen sét mbër mi ci bir koñam mosal leen rubrique bu am solo bo xamni dañuy jangat uh, lamb combat yi fi am Euh, ma di ci ànd ak Fatou jot da baax ak ki xam ne moom mooy suñu invité tey lii la ñuy indi fi nga ne moom mooy jàmm gën si Kambaaw dama wax ni njaago bu tàkk la baa ngi nii njaago bu saf-saf baa ngi nii. yaa di professeur nee na moom mooy muminu làmb ji nag. di professeur di ñaanal yaa samay mbokk mbër quoi samay grand frère fi jugee ku si mel ni ñoom Talibe yaa ngi dégg ay Fodé ay Abdou booy yu fi jugee quoi ñoo xam ñoo doon neex ñu nax ñoom. yaa di professeur di jaalewaale waa Pikine quoi. Jules Balla Junior yo parce que suñu mbokku mbër la ko waa di tamit bien kon mbokk yi mu ngi noonu di jaalawaale Jules Balla Junior wax na dëgg di geste bu am solo bi nga ni le ministre des sports Makhtar le ministre le plus aimé de la République def na ko ci gel ci jël en charge famem ci lu toll ci ñaari at ci wàllu dund ak li nga xam ne moom location waaye di gërëm aussi wàllu Balago mon moom tamit moom yëkkati terrain may ko yaay Jules Baldé waaye ak mbëru Pikine ci dugal seen loxo yëpp ak ñi amoon yéene jëf ci seen doole te mënuñu ko ak xarit ak àndaloo ak mbokk yi nga xamante ne ko ñoo ko daan taxawu bi ko jàngoro ji dalee ànd ak moom ba gunge ko ci këram gu mujj di ñaan yàlla xare ko aljanna bi jaay Cheikhul Khadim kon mbokk yi di jox dig daje ci beneen numéro sur Dakaractu dama wax ni làmb ji reen ngeen gis lu ngeen mënut a gis acca Cheikh Omar Gueye jërëjëf Cheikh cameraman ànd ak Ousmane Diouf ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy cadreur yi ci montage bi nga xam ne mooy Papa Oumar Soxna def ci liggéey bu solo kon mbokk yi ñun ak kiin ba yeneen i jamono.